te làmmiñu Cheikh al Islam laaj Ibrahim Niass bàyyi ma ne alhamdu mutlaqan li zaati baari suma salaamuna ala al muqtaar yi basal wujudi markasul asraar yi sirru waaye mel anwaar yi qadri muqtaras yi ñu ngi santaal baax di nuyu jamaa bi leen ndokkeel di wax ne képp kenn ci ñun ci aalam bi am na gan. waaye tey suñ gan moo gën mboolem gan yi. ñun ñoo am gan goo xam ne tey dama ne moo gën ci mbooloo xaalam yépp la tax mu gën ci aalam bi nag neex naa lay. ndax seexal islam al ibrahim mi ngi kan moo mën ci àdduna bi. man bi ñu bàyyi moomu moo joxoon déclaration jëmee ci ñoom bi muy dund te bàyyi lu mu wax am na war a wax dëgg la koo xam ne lu ma mébé sax dëgg la rawta loo xam ne bàyyi ko wax te bàyyi moo on on Seydi Aline Cissé di papa moom ne ko yaay sama kalifa sama njaboot gi yëpp zahir ak baati mu ceeb gannaaw mbaytaan ànd ak imam Assane Cissé teg ko ci koom moo day war gannaaw sëñ imam nag lu bàyyi tegoon sob yàlla kon coobar yàlla gi ma doon wax daaw tey maa ko rek pare fii man coobar yàlla gaa ngi nii loolu dama ne lamuñu bàyyi du lamuñu sanga njaay man damay nettali ku ma ci mere dangaa juum man damay nettali loo xam ne bàyyi ko waxoon nekk la ko jàmbur nag xëy amul ndam waaye nag dana am solo lool ci bu ku bëgg a xam bàyyi moo ne Seydi Aliou Cissé yaay sama kuutal sama njaboot te sikk amu ci lool lépp ñëpp dagg nañ loolu la boo xam ñëpp dagg nañ ko gannaaw Seydi Aliou nag mu ne Seydi Imam Assane Cissé Imam Assane nekk ci xilaafa gi utu ko utu bu rafet war na àdduna bi yàpp comme ni ko bàyyi mu ne gannaaw Sidi Aliou Sidi Imaam nag ku soob yàlla eh, li may maandoo xam ngeen ne ku soob yàlla tey nag ku soob yàlla ci tawhan aw karahan jëm jaa ngi toog moo tax ma ne kon ñun ñoo gën ci mboolem ko am gan te ñu la ñu la gën a am gan gan nag ñaar rek moo fi nekk ñun sax waxoon na ne man kan yóbbu ne billaay képp ku gëm yàlla gëm bis pénc ci naka tere sa gan gan gi nak mom lekk too ko jóg ak naan too ko jóg ganu yàlla la ganu tawhid la gan la go xamne gan ak yalla la gan ak sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ganu Cheikh Tidiane la ganu Cheikh Ibrahim la wa ganu borom taalib la jamel yu bax yi yëpp sen gal la tànneef yalla nag yaakaar naa tànneef yàlla yi yaakaar ñu ngi toog tànneef baa ngi tànneef yàlla yaa ngi ci kanam so mon bele ñu koy taru diko xaar ki doon xaar nak ñewuna te bu ñewé dana andi dana yóbbu li muy andi tawhiid xam-xam pour ñëpp mucc ci lamiñam buy def lu muy yóbbaale mboolem ku fi amoon tawat ay bëgg-bëgg yoo mënta am dana koy bale moom ën la koom-koom ci àdduna la yàlla woon ci arqoon ne xul jàll xaq wa saaxal inal baata kaana kon mu ngi nii toog dama ne moom itam xul jàll xaq wa saaxal baatu te inal baatu la ana saxu dama toujours ma ne Cheikh Tidiane radiyallahu Cissé dafa neex a tagg non non xam am na koo xam ne boo taggee doo juum xam am na kon boo ko taggee rek dafa yomb lool am na ko boo teg sax da ngay jël is na is dëgg la du dëgg di am problème ci booy wax di am taradu waaye koo xam ne xadd yëpp ko nangu xadd ne yëpp xool xam ne imaam moo gën a fës ci diine islam tey nag du Sénégal du Afrique monde yëpp la kon ku mel noonu ñëwee tey nag day na ci imaam day na rek ci imaam àjjuma jot nga dem mi Ibrahim jooju fees dal ak mbool mi taxaw xeet yëpp daje fa ñu jàng arab ñëpp jàng rek ñoo dafa daje ima bu a tëll ñëpp a échec yàlla loolu yàlla koy maye bu a tëll ñëpp sujjóot loolu yàlla moo koy maye mu fexe ba yëg ci minbar taxaw ci minbar bi di waaree di xutba bi xutba rek da ngay sant yàlla bu baax ci kàddu ko neex kàddu ko nooy kàddu ko am sikku am ixlaas am tuwaay na kàddu am muraqaba am mushahada am maarifa ah, ca kanam fële am tawbul isax mu taxawaa ca kanam a kanam am islam iman ihsan kon xeet ga mat na la kon ñu nga nekk ba imaam sa nee ba ci yow ñu nga nekk ba di wax bismillah taalibe yaa ngi nii sa njaboot rek lañ doo lañu bëgg nag dañ la bëgg te yàlla moo ko def la bëgg yàlla moo ko def ndax dafa am loo xam ne bu amee ah ah ak a nekk nii ba ngay ñëw daaw suñu siyaar méttoo na de amoon na xat-xat de waaye ba nga fa ñëwee saafara nga lu bëri bëri bëri saafara nga lu bëri laa xam di wax na alquran dafa wax ne achifa wal fusdur wa xuddan wa rahmatan lil mu'minin chifa boobu nag yaay ko ndof yaa ko ni daaw moo tax tey ñu ngi sant yàlla baax suñu di leen yaa ngi ñu bëri ñëw nañ am na xëy na xëy na xëy na ñu bëri ñëwuñ waaye liy ñëw nii doy na par rapport ak li war a ñëw incha allah ñu ngi lay xaar nag ñu ngi lay xaar nag le douze le douze kii ñëw nii برهام باء وراء الف ثم هاء